mbokk yi gannaaw bu nu santee sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy wéer ci tomb boo xam ne tax na ab jullit daj lu nekk ci ak dundam am na ñoo xam ne sax seen seenu dund ca la jeex bañ bàyyi koo fi ca loola ci seen gëm-gëm boobu loolu nag liñ ci bëgg a waxtaane rek mooy pas-pasub nit kenn du ko foye kenn du kaf jëm ca kenn du ko ci ñaawal rawati nag nga jàkkaarloo moom di ko ko wan bam di ko xam ci sa jëm di ko wax mu di ko dégg bala ñu see ñëw ñu ndokkeel bu baax a baax a baax yaari kàddu yoo xam ne jib na ci ayubés bii jëm ci loolu nu fas yéenee waxtaane dollente dénkante yaari kàddu yooyu ka ca jëkk a yëkkati kàddoom mooy xalifab lew na ñaseen yàlla na ko yàlla fay ba mu tegee nangami fan yu néew la a cheikh mohamadul muntaka yëkkati ay kàddoom bokk yi nag ñoom ñaar ñooñu ñu déggagun teñ toll niñ toll seen yaari kàddu yooyu bu ñu ko yónnee woon keneen waxal leen ko dana am solo lool waaye nag solo si mi ngi gën a rawe ci bi ñu ko yëkkatilee seen kàddu ci seen làmmiñu bopp ndax loolu warugar la yàlla daal mooy koo xam ne dara waru ko waaye ku dul yàlla am na lu ko war su ko defee ak su ko defut sëriñ mi ngi jàngal ci am bindam melokaan yi ñuy ràññee ku ñëw naan yàlla la ak ku ko doonul wa annahu subhanahu la yajibu alayhi shay'un bal li fadlin yahabu fa fiala kulli mumkinin wa tarka fi xaqihi ajis ku fiital ifka yàlla rek yàlla daal mooy koo xam ne dara waru ko ni nga xam ne nag noonu la nosub réew mi demee lislaam da ko fee fekk lu mu fi fekk mooy doom topp way juróom rek topp mag bi alxuraan ñëwee wàcc fa mu wàcc dox ab diir door fee agsi it dindiwu ca dara daf koo gën a dàbbali yaa ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum kon su jamono tollee fii mu toll ñi nga xam ne deese yëkkati ak kilifteef teg ko ci seen loxo tañ nangu ko am na lu leen war ci ñi yilif rawati nag alquran alquran wax na ak ñoom ñi nangoo yanu alquran wax na ak ñoom wa innahu la dikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusaluun yow mi nga xam ne kilifa nga rawati ci diine ñu yan la ko nga nangoo yanu na nga xam ne alquran mii ci sa loxo lañ ko yàlla teg te bu ëllëgee dees na la laaj noo defoon ak alxuraan ba nga fa nekkee te kat bokk yi kenn ku nekk ak ayam bu ayee ba fégle ba fégal kum mën a waxloo baax na kum mën a jox ca yan ba baax na waaye nag moom la ñuy waxtaane ak ayam benn muy lu si mën a wax ak loo xam ne kenn du ko mën a wax li ñu mën a wax sax du bari ndax ku lislaam fal am na ay nattukaay yum natt ba fal ko ko yàlla na yan yi woyof waaye nag bokk yi yàlla subhanahu wa taala yàgg naa yónni ñoo xam ne baatu kilifteef la ñuy taxawee ñooña ay yonent lañ daan tudd ak i al ay al anbiya ak i al al mursaluun ar rusul ak i anbiya ñooña seenub lim la muy bari bari weesu wutoon rek wan nit ñi aw yoon waaye bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwee kenn ku nekk ci ña ko jiitu woon amoon ay kawtéef yoo xam ne kenn du ko man ku dul moom loola la muy tagtale mooy ne kii li muy wax du ay waxam moom kese waaye am na boroom kàttan boroom doole ju mu wéeru ju ne ci ginnaawam ndax lii du ñépp a ko man bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee nag Seydina Muhammad kawtéef gi gën a rëy ci kawtéefam mooy alquranul karim mooy loo xam ne moo fi des ba faw amatul lenn lu ñuy séentu lu war a ñëw wutu fi alxuraan mënut a am mënut a amaat jullit yi nag bokk yi pas-pas boobu la ñu war a am xam ne kenn ku nekk jamono yi muy dund bu fi bàyyi ko yàlla dana ko laaj diggam ak alxuraan lu mu ca defoon par kenn door a taxawal kilifa ga nag naa ko ba alxuraan masaat nekk ci ay xat-xat noo defoon noo daa def te booba bokk yi laaj bi ki koy laaj moo ko gën a xam ki mu koy laaj fuuf daf koy seereel ñi nga xam ne xamuñ woon ne diw mi nekkati kilifa la ci yëf yi ñaar nag ñoo ko séq am na ci ñoo xam ne dañ koy wax nii nit ñi di ko dégg di jàngale di ko jële ci alxuraan ñenn ñi nag toog ñoom di jàngale alxuraan wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila saalihan su ko defee nag su waxee ne innanii minal muslimin ñu soog koo gëm faw nit ki doon ñaar ñooñu kenn faw mu doon ci kenn su ma nee boole doon ñaar yépp moo sa gën moo tax li ñu tudde daawa faw saa su ne day ne ci ay yox yonent yi ab risaala la fi doon si ñoom ak ab risaala waaye ku dul ab yonent nag daawa lay tudd ci yow mooy fexe ba nit ki nga xeemeem loo ko pas-pasu gëm yàlla dëgg xeemeem loo ko jàpp ko xeemeem loo ko jëfe liy wane ne kii pas-pas bi mu ne bi muy wax ne mi ngi ci moom mi ngi ko jëfe cër cër mi di ko gis su ko defee loolu moom kenn par kenn la war doonte ki doonul kilifa kenn lu dul waa këram it war na ko ca waa këram di leen sant di leen xiir ci pas-pas bu wér ak lay sam pas-pas ba ci ay jëf bañ xam ne lii mu fas mooy feeñ ni ci biti su ko defee ne ku ko taxawee na mu ko war a taxawee am na lu mu fàggu lu tàmbalee loo xam ne njariñam àdduna la tàmbalee jëm àllaaxira waaye ku ca day naagal dara nag di ca tendeefal am lu mu cay xalaat ba alxuraan nar a ruur tàmbali naa fàggu fii loo xam ne perte lay tàmbalee fii tey jëm ëllëg yàlla nañu ci yàlla musal bokk yi ku ne nuus kuy jàngale alxuraan alxuraan ci boppam nga jàpp ndax soo ko jàppee tëj ko fi barab fan yooyu jàngalewu ko bu alxuraan taxawee ca ña ko taxawal ca nga bokk kon lu ca way man jër sa xeeb daa war a jóg sol aw dàllam kem kattanam su dee koo xam ne dugg na ci ñett yépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kooku moom taarix du ko may wenn lay man raa minkum munkaran munkar moom boroom xam-xam firi woon na ko ci piri mu yomb xam nee na lépp loo xam ne fa mu nekk lu ko gën mën na faa am rek munkar la fa ku gis munkar ci yéen ku mu mën a doon su dee boroom kàttan na ko dindi ci loxoom na ko falang mu dañ su dee yées na kooka waaye mën naa wax mu dañ na wax su ko mënut te kattanam mi ngi wees yu naqarlu ko kese it na ko naqarlu bañ caa ànd waaye bokk yi ñett yooyu dañuy laaj ba xam kan lañu am yaakaar ci nit ñi koo xam ne su waxee mën naa dañ wala mën na ko dindi ci loxoom ñëpp la naqari waaye ñooñu nag ñi ko yàlla yan fi mu toll nii ñëpp di leen joxañ mooy ñi ñu tudd ay kilifa diine yi nga xam ne dañoo toog seen biir xottu gerte rek ne man law rek laa waxal ñii ne fure laa waxal ñi ne gàndar ma képp laa waxal ku waxut gàndar ba sama yoon nekku ci ñi ne ku waxut bopp dot sama yoon nekku ci nañ xam ne ñi ngi ñi ngi dox jëm foo xam ne fii duñ wàññiku te bokk yi wolof wax na ne nee nañ sax Kocc Barma moo ko wax ne koo xam ne am na téeméeri at ak fukki at bu faatoo ay moroomam du bari si ñi koy gunge fu waaye mën a nekk bu ñu demee ba ne la yaa fa sës yaa jiite ñëpp xamal ne doonatoo ku war a taxaw danga war a jóg di dox bu wér di wan nit ñi aw doxin am na ci yoo xam ne li ko waral wolof nee na waxambaane wow lolli nga xam ne boolu na ñaru na lekk na bongo yaate su ko bukki dabee ca doxin wala soo gisee réew mi kenn ku nekk bu alxuraan waxee wala ñu tudd alxuraan ñëpp jël seeni làmmiñ ñi ci xam ak ñi ci xamul ñëpp ah waris naa laaj kilifa diin yi ba xam lan mooy seen taxawaay ak lan mooy seen liggéey ci alxuraan ginnaaw nit ñem naa taxaw ci réew mii nga xam ne ñaata nit lañ fi faat seeni bakkan ndax bëgg alxuraan sax fi ñaata nit lañ fi tàggaleeg seenu njaboot ba seen bakkan des ca te alxuraan des fi moo ko waraloon nit ñemee taxaw ci réew mu mel noonu naan fii alxuraan du fi àtte jàmm jëkk ca mujj ca loolu war na yóbbu sikkim ab dënn te jóg ci dafa jot balaa ñi nga xam ne bu ñu xasee ba jóg kenn du leen mën a téye di jóg bokk yi pas-pas kenn du ko caaxaane gis nga fan yi ñuy waxtaanee naan diw daa def ci gone lii def ko ca laa ku xam wax ku xamut wax tey jii rek ku déglu RFM digg nga ca loo xam ne ñun moom la ñuy bañ ci gone gone goo xam ne daa bankal loxo ka ko doon jàngal ba teg ko ab bant ba ñu ba ba kooka kalaame ko moom itam ba dem kalaame ci bokk yi gone gi ñuy jàngal su demee ba mën a kalaame ka koy jàngal ñuy kalaameente ñoom ñaar loolu ñun soxlawuñ ko doxin woowu soxlawuñ ko doxin woowu soxlawuñ ko te bokk yi am na benn bañkat bu ma sa wax ne li muy bañ bis buñ ko ci rayaa yéet junni nit dana jut war ginnaawam di ko bañ ni moom te ñoom la seen bañ di gën a dëgër su ko defee bokk yi dog jóg jot na gis nga xibaar boobu ñi ko doon wax teguñ ko fenn teguñ fenn xale bi nga xam ne moom dafa dóor ka ko doon jàngal ba muy yéeg ka wàcc ku déglu RFM ci suba tey dégg nga ko xanaa loolu ma matoon a wax gone googu gone gone la doon bu ëllëgee gone goo xam ne kiy sol ci moom xam-xam la jàpp wantal ko ba mu kalaame ji ko bu fekkee nag dañoo bëgg a dox jëm ci dundu bàyyi ma nga xam ne ku nekk moomoom boppam su mënee dara te kilifa dina nekk ci Sénégal te kuñ bu nekk ña nga fa ruq bu ne ña nga fa ruq bu ne ña nga fa di woote su boobaa nag daje jot na bii sëriñ Muntaxa wax xool sart yi nga xam ne mooy tënk réew mi yan sart la te kat ci la ñuy àtte jullit ñi te soo wax ñu ne alxuraan àttewu fi ab jullit su àtte wutul alxuraan lu muy àtte moo taxoon ci benn fàttali ci ay bis yële ñu ne jërëtut ñuy wax kilifa diine naa ko na wax wala na na na jóg ku tax ginnaaw du àtte ginnaaw du àtte lu muy jariñ su dul àtte it war naa am kàddu ci àttekaay yi di xool lañ fay àtte lu mu doon rawati nag këyit téere boobu nga xam ne Sëriñ Muntaxa ci ba mu tuddal na ko boppam muy constitution ba moo ko waxal boppam kon boobu ndaje moomu lu jullit yëpp yàkkamti la ndax su amee dana am ñeneen ñu ko ñu ko toppandoo su ko ñeneen toppandoo xew-xew yi ngay dégg ci àdduna bi yëpp mën na caa jaare lijjantiku mooy alxuraan jépp li muy yaatu yaatu li kaamil yi bari bari bari koo ne bokkoo ci sa wàllu nekku ci lu mu la mënal mën na la ko def niñ ko xamee nag ba noppi saa bu aw nit jógee ci seen coobaree bopp bëgg lu baax rek ne dañuy yëngu ci alxuraan su ca defee ñaar fukki at jëm fanweeri at lépp di baax ñu ne xiim su njuumte amee aha ñu ne dara mës ta baax te ñoom xame wuñ lu baax ak lu bon luñ liñ bëgg rek lañ xam xame wuñ lu baax ak lu bon liñ bëgg a wax dong wala ñu bëgg koo laal wala ñu bëgg saa jot képp lañ xam nañ xam ne nag alxuraan nee na woon ci ñi ko gëm yow yonent bi nee leen mataau dunia qalil qul mataau dunia qalilun wal axiratu xayrun liman ittaqa wala tuzlamuna fatila gis nga ku gis xew-xew démb bi da nga xam ne yaa fi nekk tekkiwul dara ki si mësoon a yor réew mi démb ak barki démb ñi xaw a mag ñoo ci mën a wax dara bëkk démb la soxnaam fan yàlla wàcc ñu doon ko ñu doon ko denc démb. ñu dégg rajo yi ba yàgg ñu ne fii ñu koy taxawoo de feesu na mu war a feese ci koo xam ne. dañ daan rang di dugg këram loolu la ko waral mooy ànd ba yàlla daa taxutoon ku nekk ak njariña la bàyyi woon ci moom ba mu ne ab diir nekkatu fi dañ koo fàtte ah wane na aw yoon wane na aw yoon waaye bokk yi ak a wuuteeg Cheikh Omar Fouti yi mi nga xam ne bëkk démb lañ ko doon waxtaanee te boobaag léegi ëpp na téeméeri at ak a wuute ak ak bañ na gañ koo xam ne fa mu dëkk boo fa demee fi mu toll nii ba léegi si da ngay defee ne boo duggee ci nekkam boo nuyoo mu fay la yàlla rek ma tafeeteel ñi nga xam ne mbir mi naqari na leen ñépp la massa kenn ku nekk na ko wax moroomam waaye bu mu tax kenn tekk laxasaayam gis nga fii ba adduna di jeex alxuraan dañ koy jàng di ko mokkal ñi ko mën a jëfe di ko jëfe ñi ko mën a gut a jëfe di ko jéem a jëfe ñu leen ëppoon doole fuuf ñoo ci jéem ba sonn xaw nañoo tàyyi fi mu ne nii xaw nañoo tàyyi dañ ko rus a wax ndax mbooloo moo xam ne xamoo ku leen tënk ku dul yàlla xanaa alxuraan jéem nañ ko lakk jéem nañ cee def lu nekk ci lu si mënta wax nit ñi di ko gën a bëgg di ko gën a sopp ne leen wóor ne li feeg ñu sa ngi am ci kaw suuf suñ doon jàpp jullit yi par benn di leen rayit la xewoon ba sëñ bi soog a woote mooy xewaat tubaab bi woo aw mag di leen naxe ray bu wootee ci biir buñ génnee tàllal deret tàllal jaasi ju taq deret na ana ki ci topp defee da leen di yox yoxiloo déedéet am na ñu ko gënoon a metti fuuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne diw mii su mënatu sa yor drapeau bi nañ ko jox diw mooy day dee te du tax kenn dëpp dañuy bëgg a jël drapeau bi kenn koy day bëgg a jël drapeau bi ñu jëlaat ko ci moom ndax day bëgg a faatu léegi la gën a raw léegi lañ gën a xam yàlla léegi lañ gën a xam yonent bi léegi lañ gën a bëgg alxuraan léegi la juris yi gën a bari la benn boroom xam-xam waxoon ne ah dañuy wan deret di naan da ngeen di bàyyi sëriñ bi wala ñu rey leen ñëpp sëñ Moussa Ka sant na ko ay bayit jàmbaar jóg rek taxaw na commandant li nga wax du dëgg mënuñoo tey dem Touba Touba mooy fan mooy lislaam rek benn boroom xam-xam nag moo bindoon ne yatta ngi ne yoo xam ne soo bëggee far aw xeetu lëm rawatina xeet wu yor pas-pas jëfandikool yatt yii yatt yii nag ku xam bu jógee fii na xam ne moom la ñuy fexeel ak fu mën a nekk ci àdduna bi te yëg na ñu ngi lay fexeel mën ngaa am bu dee fukk moo la doon fexeel mën naa am juróom-ñaari rëcc nga ko boroom xam-xam bi daal bind soo bëggee màbbu aw xeetu lëm rawatina wu am pas-pas yatta ngi nii fexeel ba tàggale ko ñoom wala bañ gëm ko da ngay fexe ba jigéen duutu gëm ne daa war a toog ci kër yor ko da ngay fexe ba jigéen duutu gëm ne moom dafa war a toog ci kër ga di yor njab di yar njaboot ga ana lu xew léegi góor daa war a xëy jigéen xëy te moo ne lislaam daa noppaloon jigéen la ne ko toogal bu def dara neel tugg rek ñu togg sax di la jox ñu wax génnal kër gi dañ lay tardeel ana lum jur jaaxle rek saa su ne ñu ngi ci jaaxle goo xam ne duñu xam fu mu jëm ak ñoom cancer ci ñoom la bare te am na ci yooyu dañ naan xalaat yu bare koy jox nit ki kon kooku nee na soo bëggee màbb aw xeet rawatina wu gëm yàlla fexeel ba jigéen ña génn kër ya bañ a gëmati na ñoom dañoo war a toog ci kër ga yor njaboot ga ñaareel ba fexeel ba jëmmi xam-xam nga màbb ko jaggi ko ruur jaggi ruur loola noo koy xame noo koy noo koy noo koy defe mooy dangay fexe ba dal ci kaw jàngalekat bi di ko tuutal di ko ñàkkal solo doo ko fay lu ko jar te di ko taxawu ci ay résultat ba noppi saa su ne nga di ko toroxal ci kanamam ci kanam ki mi ñi muy yor di leen xamal su boobaa lam leen di wax dutuñ ko gëm sax dutuñ gëm ne xam-xam la leen bëgg a jox kenn ku nekk ña muy jàngal suñ ko xeebee dutu dutu def ci ñoom xam-xam ñi xam jàngale dëgg ci ay jamono danañ def suñ juumee su leen ka leen ka ñuy jàngal ne da nga cay juum ndax lii bëggu na ma koy waxoon démb duñ nangu ne dama juum ci kanamam de dañ naa ko dama la doon seetlu yow jàmbaar nga kat moo tax buñ la xeebee dutuñ dutuñ jël ci yow xam-xam waaye nee na da ngay fexe ba ñu ne ku ñuy roy amatul ku ñuy roy amatut ki ñu roy nag boroom xam-xam moo ci jiitu buy jëfe xam-xamam ak koo xam ne lu ñu ko tegal mu xalaat ca ba xam lu waral lii su ko defee kon loolu lu mat a bàyyi xel la ñett ngi ni yoo xam ne ku bëgg a màbb aw xeet rawati wu gëm yàlla jëfandikool yett yi dalal ci kaw ñett ñii dalal ci kaw jigéen dal ci kaw xam-xam dal ci kaw ab royukaay jigéen ji da ngay fexe ba génne ko këram duutu musóoru waxuma laa di muuru di sol colom góor foo ko fekk mu góor ñoo ànd di kaas li góor ñi di kaas naan jigéen ñi jigéen ñi te moom lislaam dana na toog këram rek waqarna fi buyootikun waaye nee na na nga dal ci kaw xam-xam nooy dale ci kaw xam-xam xam-xam du lu ñuy laal waaye ci wu nit lay nekk fexeel ba ki yor xam-xam di ko joxe ñi ngi koy jox xeeb ko su boobaa dutuñ ko jël waaye fexeel ba royukaay dootu am ñi ñëw roy ñëpp ñu nelawloo leen bañ yandoor ñu mapp mappal leen tëj bunt ba génn ci bis des ak njaboot gi foofu nag la wax ja nekk bokk yi ëllëg bu demee ci alquran suratu safaat dafa mel ne ñim jëm doona gutoon aw jullit dëgg-dëgg waaye ay melokaan dong nga taxoon mu doon wax jëmmi nit ñi taxu ko woon di wax ndax nit ñëpp yàlla leen sàkk ahshuru alladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu yacbuduna min duni illah fahduuhum ila siraat aljahim waqifuuhum innahum mas'uluun ma lakum la tanaasaruun bal hum alyawma mustaslimuun ëllëg am nañu jaamu yàlla fii lu bari léeg-léeg nga dégg ñu ne diw doo ko dégg ki dara tamit kilifa musiba nga noona doo ko gis fenn musiba nga noona mosoo koo dégg fenn waaye saa dem laaj ko looy liggéeyee lan ngay liggéey ci diine ji bokk yi xew-xew bu toll na bi am ñu jàpp alxuraan tëj ba noppi ñu jul naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin kenn ku nekk mën na ko laaj boppam ba xam moom li muy wax dëgg la ci moom te alxo yàq na seen lañ tëj ci alxuraan la nekk waqifuhum innahum mas'uluun nag mooy nit dana dugg fi ci néegam kenn du ko gis kenn du ko dégg ci dara kenn du ko gis fenn ñu naa nee jaamukatu yàlla la jaamu yàlla mag nee na woon ci jaami yàlla yi kooku waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la tekki yonente bi nee na bu ëllëgee nit dana yàlla fay ma mu ne ko lu ma la ameel ndax yow yow kay maa lay topp mu ne ko mu ne ko xiif naa bés nga lànk denc ñam ba mu yàqu te soxla woon naa ko mu ne ko yow tabarak wa taala ñu ne ma woon doo lekk doo naan mu ne ko bari na ñoo daan gis ñu duñ lekk duñ ñu xiif ba xiif di leen bëgg a rey nga yor loo leen jox te joxuma ko te boo leen joxoon ci sama loxo nga teg ba xat-xat yi nit yi gis ñépp jàll kon kooko toppatul yàlla waaye yàlla koy topp te ku yàlla topp fa ngeen di jëm du sori nee na dana sëq ab sëq ci nit ñi dugal leen aljana sama yoon nekkut ci luñ def ak luñ defut waaye dana sëq ci nit ñi it sànni leen sawara te yoonam nekku ci laa ubali yonente bee ko wax xadis xudsi la laa ubali waqifu minal masuluuna nag mooy ñi ne woon nemm nga xam ne doo leen dégg fenn doo leen dégg ci dara ëllëg ñu bëgg a dem àjjana yàlla nit ñi ne déet yàlla kee nu muy demee àjjana bàyyi nu fi bañ tëjee alxuraan kenn dégg ko woon ba ñuy ñaawal ñi jàngale alxuraan kenn dégg ko woon yàlla ne ah ab atteem day maandu moom kon nañ leen woowaat ñu seet seen mbir ba xam ñu ñu koo ñooñu jël ci jël ci moom seeni xàq ba xam lu muy dese loolu mooy iflas dëgg mooy rek ku réglé la muy liggéey amul dara far ay bor topp ko yàlla nañu ci yàlla musal na sëñ dara yépp muñ xam ne du gën di neex day gën di metti ñi am pas-pasu jàngal seen doom alxuraan it loolu bu mu leen tax a bàyyi lu mu leen jaral na ko na leen ko jaral sëñ bu mag bi sëñ Tuubaa nee na gone gu mën a mokkal alxuraan nga mën ko caa jàppale fexe ba mu bañ a mokkal alxuraan àdduna ak li ci biiram jaru ko kaw suuf si it gisuma lu ko fi jar daa soonu woon waaye dafa jóg toog di fëgg loxoom ci suuf naan suuf si gisuma lu ko fi jar kon boog ñiy soow ak a yàq lu mu leen jaral na ko jaral jullit yi te ma fàttali ne alxuraan pas-pas la gis nga nii ñu koy weejee fii ci réew mii ay mbërë fi tëdd rek di ci teg seeni loxo waaye am na foofu ci àdduna bi ku ko fa def da nga xam ne yàlla julli rek la santaane ci ab jaamam yi ciy xew bari na waaye wàcce gu ñoon woowu nag ndax ñooñee lam leen jaral jaral nañu lu ko ëpp ndax bu ñu seetee ci àdduna bi li mokkal alxuraan ci Sénégal la gën a bare nit ñi mokkal alxuraan ci Séné ci Sénégal la ëpp ci àdduna bépp te day gën di bari ndax gis nañ njariñam yàlla nu yàlla dafa dégg ak topp te musalum seytaan nekk paxeem te bis ba ñu wax ne it sëñ boobu ñu jàppoon moom ki ñu mujj a jàpp ñu jàpp bari nañ waaye ki ñu ci mujj a jàpp bis ba ñuy wax ne ca la ñu koy àtte jullit bu ko mën dafa dem ba mu xam ne wéetut ci mbir mi bu ko defee ñun ñëpp ñu boole ñu dugal ci biir ñu ànd ak moom nekk fa di wéttalante yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin